asalaamaaleykum mangook waxtu ba jot bàkk ba jub ñu daal di leen nuyu fu ñu daan nuyoo muy ci Dakar Net ci émission bi nga xamante ni mooy Top Actu ni ngeen ko xamee Top Actu di actualité yi gën a faar gën ci fës ci biir semaine bi la ñuy jël rek daal di ci teg waxtaan ci xool nag fi mu gën a baaxee rek ñu teg ko ci gis nañu aussi également seen i commentaires macha allah lépp loo xamante ne rek dañ koy faral di wax mooy bu ñuy wax ñi ñuy déglu amaana ni sax ñooñu gën a maîtriser li ñuy wax waaye bu dee tamit léeg-léeg wax ji day xaw a sax di déborder ñu ngi ciy jéggaloo di leen di wax naan yéen ngi ciy ànd ak votre serviteur Davida tey ma fego ci ak moom mi nga xamante ni dama koy wax mooy Diama Noir Sista Diarik ci loo ne. Davida maa ngi nii rek namoon naa la. maa la tàkkal namoon naa internet yu Dakar net aussi. Mhm. xam naa lu ñu def lu dul. commencé wax. mais balaa ñoo ma foo jëlee sa chemise bi. rafet na trop garaawul bàyyi ñu commencé. ah bi est-ce que ma ko jox. maman tout cas rafet na. maman moo ma ko jox surtout ak période tàngoor bi madame ah. mhm. <laughs> dafa rafet. merci beaucoup ah. sama frère yaa ma dàqale fu. Hmm. Mhm. gars yi doon nañu la laaj doo leen ba pare. Euh, chers internautes Dakar Net xam naa ne na namoon nga na moon ngeen ma mais maa leen raw. yéen hmm. xam ngeen loolu sax. Hmm. mais xam nga temps moo tax man ni nañu. dawal ba ci kanam mhm. après yéen man ak yéen xamante nañ xamante ngeen mhm. kon xamante ngeen lan moo gën a fës euh, li gën a fës nag euh, duñ njëkkee ci lu dul ki nga xamante ne nii euh, mooy Dame Mbodj mhm. kàddu yi nga xamante ne yëkkati ko na ko teg ko ci ki nga xamante ne nii mooy Malick Sall parce que moom nee na Malick Sall mooy ministre toj toj toj toj loolu lan moo si say xalaat yow du samay wax kàddu ki nga xamante ne mooy jàngalekat ba Sénégal ñëpp xam ko muy Dame Mbodj la mu jël yëkkati ko teg ko ci ndoddal kii di Malick Sall euh, nekk ministre bu ŋànk lii di justice ginnaaw pëccëxoo yi nga xamante ne amoon na ci jamono ja nga xamante ne ñu ngi doon voté lii di loi bi soxal wàllu terrorisme comme dañ koy wax Sénégal sax baaxoon nañ di wax ni yooyu amu fi mais xëy na bu loi bi jàllee pëccëxoo ba ca am nag tax Malick Sall am ay kàddu yu mu yëkkati loolu la Dame gis xool ko seggati ko ba noppi daal di koy expertiser jël ko daal di koy takkal ab étiquette muy toj toj daal di sax dem ba jëlaat na kàddu goo xamante ni moo gën a doy waar toj toj muy waxi dof defe naa tey ji àbb na vocabulaire bi ki nga xamante ni moo di Pawlish ana lan uh-huh. nga gisee kàddu yooyu ah euh, doon na kàddu yoo xamante ne nii nag moom mënuñuy sori mm-hmm. mais daal ku ci nekk ci ñoom daal war nga xoolaat sa doxalin war nga xoolaat say kàddu war nga xoolaat say jëf war nga xoolaat lu baree bari parce mm-hmm. que ñun ñoom lañ am ñooñu fi nekkal kon war nañ xoolaat seen bopp bu baax mhm. Dame Mbodj nag du bulet xëy na moom it lépp lu ko naqari si sénégalais la daf koy wax citoyen la aussi <laughs> mais nag moom du nëbb ay dëggam da koy wax mhm. ni mu ko neexee ni mu ko sentir la koy waxee mais xëy na tey mhm. étiquette bi mu nga xamante ni moom la ko tàkkal xanaa ñu bàyyi ko police moom borom kii boo xam day laaj droit d'auteur wala lu mu ci mën a doon a leen li gën a fës euh, mais euh, Davida Ba yaa ngi waajal dem Espagne Espagne waaw lu xew foofu géej gi ñu war a xar déet waay ku kànge nee na day xar géej gi ba tax na ki nga xamante ne nii mooy Iran Ndaw mhm. génn na na am kàddu yoo xam ne teg na ko parce que kii di Iran Ndaw nee na ku kànge lu mu wax yëpp du dëgg mhm. li mu wax yëpp ay naar la mhm. donc nag ah en tout cas féticheur ba la man du <laughs> moom dama koy xaw a sax di ragal lax la muy sol ak li mu koy sañsee di ko ci teg aarale ko nag ak ay couleur am moom kunkande la ñuy waxtaanee ki nga xamante ni nag da ko fekk jël ay dëggam bu doon sax mën la ay cours mën a doon na koy rafaar muy Iran Ndaw mi nga xamante ni ku ko xam xam ni presseur bu mag la ku ko xam-xam ni ay dëgg-dëggam moom daloo koy wax ak koo mën a doon loolu Iran yëkkati kàddu moom sax na ma ko waxee ñu tiitare ko bu rëy na ne ab fenkat la mhm. nee na kunkande mi ne dinañ xar géej gi te nag jamono ja mu koy joxe nga xamante ni ñëpp war nañoo mën a dem taaje boon wala Abdou Jàmbaar foofu ci jour tam xarit la jaar ñun ñëpp dem Espagne waaw parce que bu xaree géej gi ñu rek daal laa gis ni la joxe li nga xamante aussi moom mooy rendez bi uh-huh. waaye am na sama benn yóbbante ba nga xamante ne nañ ma ko sax uh-huh. Bamba nee na ma bu dee comme Kandé da ngaa xar géej gi na ko bàyyil benn parcelle boo xamante moom ak bukkunta mën nañ fa dëkk defal fa seeni sato ak lu mu doon defe ndax ñu mën a tiim géej gi hmm. wala ñu jaare fa rek dem Espagne hmm. man de xam nga wax ji lu ma ci xaw a jaaxal xam nga daal moom ba tey ci xar gi la yam damay xar géej gi te ñu gis ni ku nekk daan na wax ni damay xar kër gi mhm. est-ce que nekkul day bàyyi ba jour bi mu indi leneen lu bokk xar géej gi ah moom nee na day xar géej gi hmm. moom li mu wax c'est clair et net géej gi lay xar def ko deux parties waaw looloo tax Iran Ndao kat nee na bu dee mën nga xar géej gi ñu ngi lay jox rendez-vous nga xar géej gi waaye tamit ah, gars yi ah, mais ki nga xamante ne mooy 10 000 problème nee na moom bu xaree géej gi moom nag day peinture asamaan. Hmm. Mhm. kon daal mi ngi ma ne gaalub dof ku ci nekk ak na ko neex ak nu mu koy sentiree li gën a fës leneen li gën a fës <laughs> euh, euh, di naqar ak bi nga xamante ne nii am na hmm. foofu jas euh, hmm. parce que benn femme boo xamante ne nii am na ñetti doom moo fa daal di xaru noonu la demee mu doon nag lu tiis loo xamante ni xibaar gi ba mu jugee li ci gën a doy waar nag moom mooy soxna soosu ah amoon na ñetti doom mm-hmm. waaye li ci gën a doy waar mooy moom bi muy xaru di mm-hmm. takk boppam bum mm-hmm. xëy na doomam ki nga xamante ne am na lu tolloo ci fukki at ak benn muy onze ans moom moo ko gis à travers ci fenêtre bi gis ni kii lang fale yaayam la ci kawit loolu bi mu wootee waa kër gi ñëpp génn daal di ñëw fekk ko fa waaye bu leet ci li nga xamante ni wax nañ ko nee nañ bi moo nekk ñaareelu yoon muy tànte li nga xamante ni moom mooy suicide bi waaye tamit liñ ci gën a gis xamal na ni dafa amee woon li nga xamante mooy feebaru bopp mhm. waaye euh, li may wax rek mooy ñu ñaanal ko suñu borom mhm. mu àtte yërmande ci kawam mhm. waaw ci période bi nga xamante ni ñeneen ñaa ngi daw tabaski ñeneen ñaa ngi def lépp ci am jamono jooju la am daal ba tey beneen nakar ak amaat foofu nga xamante ne nii mooy Kolda euh, parce que am na benn jeune coiffeuse boo xamante ne nii euh, daf dafa dafa maanaam courant moo ko maas ba mu ba mu daal di ñàkk bakkanam aussi moom tamit noonu la ab coiffeuse la foofu nga xamante ni moom moo di ca Kolda Sud li nga xamante ni la mbir yi amee bokk na ci coiffeuse boobu lal ba nga xamante ni mooy lalu boo weñ la mhm. naka la ko laaleel weñ ba daal di koy maas moo tax mu jaar fa ñàkk bakkanam waaye mbir ma ba muy am ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay dëkkandoom ñoo ko gis dégg coow leeg yuuxu yeeg yooyu ci la ñu dawee waaye fekk nañ c'est trop ñu daal di koy jël yóbbu ko ci margo bi nga xamante ni moom moo leen gën a jege. Mhm. Euh, jaar yi foofu ñu taxaw ci mhm. ci période bi nga xamante ni sax jamono ji ak nawet bi mhm. ci yenn zone yooyu lu ci mel ne Kolda xam nga ni foofu day taw Ziguinchor dafay taw mhm. yeneen ni Tamba ak yooyu yëpp day taw mhm. euh, Ndakaaru xëy na am na fi ay tepp-tepp yu fi jotoon a am ak yooyu waaye day tax nit ñu aussi ñuy war a am vigilance bari bari mhm. jëmale ko ci wàllu woowu mhm. te ñuy sorile parce que Sénégal fii dañoo am ñoo xam te dañoo dëgër bopp surtout ñu moytu nag di brancher téléphone yi ba pare di ko utiliser en même temps waaw loolu aussi tamit war nañ bi mhm, parce que ku ci mel ni ku ci mel ni euh, Bamba damay koy gis moom lu ci bari même buy jël téléphone di di def yi mu ci def day brancher après di continuer moo xam day uyu téléphone wala mu ci mën def donc loolu je pense que baaxul. baaxul waaw mhm. loolu moom euh, c'est pas sûr nañ ci bàyyi xel bu baax a mhm. baax a baax. lan moo baaxul leneen loo xamante ni xew na ci ñum réew. ah assemblée nationale. Hmm. Euh, député yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi war a nekk di xeexal ñoom ñi nga xam ne nii ñun. Mhm. suñuy kàddu ci ñoom la war a jaaree. ba askan wi yëpp yëg ko. Euh, gis nañ ni nga xamante ne nii ñoo ngi koy defee fële assemblée. ba gis nañ ki nga xamante ne nii mooy maitre Malick Sall. dem nañ ba koy traité daan. Mhm. waaw daan googoo mhm. tax ki ko ko tegoon wax ko ci ne waxi dof la kooku moo nekkoon dàmbooj bu mu mhm. jógee ci dàmbooj bi yoon nag assemblée nationale ñoo manqué ko lu tolloo ci fukk ak juróom ci ay député ñu sàkku ngeen ñu tekki ndombal tànkam ndax wax jëm leen wax saaga la opposition bi dañu gis ni kat kii di Malick Sall daf leen a saaga terme bu mu utiliser nag mooy du répondre benn mbaam par exemple bu ko nit ki wekkee mu wekkaat ko loolu waxu mbaam la ak jëfu mbaam moom nag du répondre loolu nag moo tax ñoom ñu daal di sàkk ñoom quinze députés yooyu daal def ab pétition ngir ñu tekki li nga xamante ni moom moo di nombal tànkam ci assemblée nationale moom daal nañu jàpp ni daal déclaré nañ ko une personne non grata mhm. ana wax jooju mais est-ce que yaakaar nga ni euh, Davida c'est normal ay député mhm. ay magum jëmm mhm. taxaw ci assemblée fi nga xamante ne nii fa la ñuy voté maanaam lépp loo xam ne ñun moom lañ bëgg ñun askan wi ci ñoom la ñu yaakaar maanaam ngir euh, am lu ñu neex comme wax loo xamante ne nii bëgguñu ko est-ce que c'est normal ay magu jëmm taxaw fa di xeex mm-hmm. ba ñu gis ci koo xamante ne nii mën nañ ñi mooy nekk futur président mm-hmm. taxaw di xeex est-ce que loolu normal na man moom li ma ko wax waxaat ko duma ci taaye di koy wax ndax Sénégal damay jàpp ni léeg-léeg dañu am lu ñuy fàtte mm-hmm. xam nga ki ñu jël jox la oto ne la dawalal ki la jox oto bi moom sañ naa wax ni fii ngay gaare mhm. mais suñu député yi nga xam te ñoom ñooñu fi représenté je pense que ñoom dañuy mal ne dañuy fàtte askan ba fa nekkal mhm. Mhm. kon bu ñu demee ba fay def yoo xamante ni mën nañ ko yëfu je foutisme la parce que entre député bu ñu nekk di dóorante di kurofañante ñii ne ñoom ñoo fare ci opposition bi ñii ñoo fare ci pouvoir bi mhm. je me dis que ni intérêt Sénégal kon ana moom mhm. qui seront donc les perdants mhm. mais les Sénégalais lambda bi nga xamante moom amul kàddu mais jàpp na ni député boobu nekk à l'Assemblée nationale moo ko fa war a teewal bu ñuy bum ak di nasab di nees kooku moom moo ko fa représenté te bu ñu gisee ñoom ñooñu ñoo fay nekk di dóorante ñoo fay nekk di saagante waaye ka nga xamante ni tey ji moom la ñu jàpp ni bu ñëwee mooy modéré leeral mbir mi waxtaan mbir mi ba mbaam mhm. man nag jàpp naa ni mbaam moom boo demee boo koy traité nit ki moom mhm. ah jot na yow mi leen koy traité nga xoolaat sa bopp mais mais est-ce que tamit euh, député yi ñun askan wi lañ fa nekkal parce ku ci nekk yaa ngi xeexal ki xamante ne nii euh, moom nga moom nga faral maanaam mhm. opposition mu ngi xeexal Sonko ah euh, ñi nekk au pouvoir xeexal Macky Sall donc est-ce que est-ce que est-ce que ñun lañ la fin ah, xam nga fi waaye bu nekk nañ fa yow looy nekk ba tàggoo nga xamante ñu la doon siraan yow daa mel da ngaa ragal wax ah, xam nga ñun moom kenn Davida Davida waxal. kenn fa la ñu de. est-ce que doo wax tamit hmm? rek. Ah, doo wax ci ah, loolu ah, man li ma la wax leer na gis nga foot juma footisme. Uh-huh. la gën a nduru ndax yow da ngay xam lan moo la teg assemblée nationale. Uh-huh. teguñu la fa ngay tàcc. et que lu gën a garaaw dañ koy gis mooy ci soi-disant des députés yoo xam te dañuy nekk en xel ñuy nekk di di benn loi. ñuy nekk di jouer uh-huh. ñeneen ñi dañ fay nekk di di lido. mu nekk loo xamante ñun ñu ko ci ñoom. di saagante di xastante di xeex di mbëkkante mel ni ay mbër. waaw du loolu nag moom lañ fa kii yow boo fekkee ne ngay toog di wax loolu sax boo moytu nga mel ni ñoom <laughs> kon moom ministre bi tamit xëy na loolu la jàpp ne du tontu benn mbaam mbaam lu wékk nga wékk ko yéen a yem waxam la yow looy tàggoo. Euh, du ma tàggoo lu dul euh, di la remercier mm-hmm. euh, sama frère sama xarit di remercier tamit internet Dakar Net. Mm-hmm. xam naa ni moon ngeen ñu ñun tamit ñoo leen rawoon di yaakaar ne tamit li ngeen xamante ne indil nañ leen ko tey neex na leen ñu leen di wax ngeen xaar ñu ci yeneen actualité ci yu gën a fës maanaam ci biir semaine bi incha allah. Mhm. ba samedi prochain bu fësalee ma fësal man ñamay fësal mooy ñiy tax tey ji ngeen gis ñu moom mooy waa RIS yi euh, saa su nekk damay wax koo ci wax kenn ki rek yóbbaale na ñëpp ndax lépp luy rafet lu nekk rek ñooma ñu leen di ñaanal yàlla ma defal leen tawféex ci liggéey bi nga xamante ni mucc ayib jëmale ko fi nga xamante ne mooy ci Dakar net ba lépp lu ñuy wax muy leer ci son bi ñoo fa ne waaye tamit ci image yi qualité bi ndax damay faral di wax moo gën quantité. ñoom mm-hmm. am nañ personnalité am nañ dignité ba tax ñu accompagner ñu ba lépp lu ñu wane muy suñu identité ñoom waa Résil la kon ñu ngi leen di jaajëfal waaye tamit jaajëfal yéen ñi nga xamante ni gis nañ leen ngeen di wéy rek surtout di abonné ngir benn information bañ leen di raw ndax saa su nekk dama koy wax. émission bi di top actu yi bépp information boo xamante ni nit ki dafa xool ba mu raw ko ci pression la ci am actation tension bu boobaa votre serviteur Davida di leen jox dig daje fii rek beneen samedi.